bés bi nak di bés bu rëy ci walu tourisme ak transport aérien ndax gulet ci Sénégal xaalis bu toll ni ñu duggal ko ci secteur du tourisme ak transport aérien ndax 75 milliards juróom-ñaar fukki milliards ak juróom fuñ ko duggal ci ab secteur lolu guléet la waye war nañu wax ñun wa secteur tourisme ak transport aérien gatché ngalama le président de la République Macky Sall ndax moom mo jël dogal jox tektal gouvernement du Sénégal pour que ñu def suñu kéemtalaay kattan pour que ci délai yu gën a gaaw ñu mën na jël xaalis bu toll noonu jox ko secteur bi ndax kat ku nekk xam na ne tourisme ak transport aérien ci mbas mi nga xam ne moom la ñuy dund euh, tourisme ak transport aérien ci am ay gaañ-gaañ yu metti loolu waral tey ñu am ñaari banque yoo xam ne ñoo ñuy gunge loolu aussi muy muy lu bees ndax avant tourisme ak transport aérien banque yi ñemewuñ ko woon waaye bu ñu toogee tey ba am ñaari banque ñuy gunge muy BND ak NICA man do quel seen kilifa yi fi tew muy madame Adama Diouf ak monsieur euh, Thierno euh te ñom bi ñu leen di tànn danaka jot nañu lu mat fukki dossier ak ben ci ay banque yu bëggoon a le secteur tourisme et transport aérien loolu lu muy wone wa secteur bi moy seen euh, ñi yëngatu ci tourisme et transport aérien moy banques yi légui am nañu xel mu dal ci secteur bi légui nak li ci dess moy ñun ñi nga xam ñoo ci nekk ñu gor gorlu ba xaalis bi nga xam ni ñëw na

ak ci wàllu transport aérien ñu mën ko jot te loolu pour ñu jot ko secteur privé moom mooy ànd ak gouvernement bi ànd ak secteur bancaire pour ñu mën ko réaliser te loolu mooy mébét bi tey